salaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki diaspora sénégalaise ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk di leen jox seen wàccuwaay di ñaan suñu kàddu yi fekk leen ci jàmm di ñaanal di sàkku ñaan ci yéen ginnaaw bi nga xamee ne président Bassirou Diomaye Faye jël na dogal tas pencum ndaw réew mi di assemblée bi démb ñu war a dem ci ay jongante yoo xam ne dañuy tànnaat ay ndawi réew ñooy ay député ci 17 novembre bi ñu jëm muy ci fukki fan ak juróom-ñaari ci mois de novembre bi ñu jëm incha allahu rabbi di ñaan yàlla bàyyi ñu fi ñu fekk ko ñun ñëpp tal ko ñu feebar yàlla yëkkati leen ñi ñàkk yàlla may leen dara ñu àndandoo def campagne bu silwiise bu ànd ak dal ak programme yu leer sénégalais yi mën a dem ci mbañ gàcce yi tànn ñi nga xam ne ñoom lañ bëgg a yebal ci assemblée bi di ñaan yàlla mu defal ñu ndam ñun ñi ànd ak président Bassirou Diomaye ak premier ministre Ousmane Sonko ak Pastef mbokk yi ginaaw bi nga xam ne tas nañu assemblée bi ñu war a dem ji ay jongante jongante yooyu ñu war koo waajal ndax dafa gàtt ci ñaari weer lañ ko war a def ñaari weer yi dafa cëkk ñaari weer nag buñ ci fàgguwul teel a jóg teel la jël dogal yi nga xam ne moom lañ war a jël ci wàllu nguur gi ci organiser élection yi waaye tamit jël ay dogal ci wàllu politique te mooy tabb ñi ñu war a tabb investiture yi war koo def mu nekk ay investiture yu baax a baax a baax ay nit ñu am xam-xam nit ñu am loyauté nit ñu am éthique nit ñu am morale nit ñoo xam ne am nañu jub jubal jubbanti ci seen der nit ñu xam assemblée nationale ni muy doxee xam tamit li nga xam ne mooy liggéeyu député liggéeyu député bi kenn ku ci nekk war nga koo xam bala ñu laa tabb ndax assemblée waratuñ fa yóbbu ku xamul liggéeyu assemblée te loolu moo fi mas a am ci Senghor ba léegi kon mbokk bi ñuy woote jub jubal jubbanti bi ñu indi dafa war a feeñ gannaaw bu mu feeñee ci gouvernement bi ci ñuy tab dafa war a feeñ ci assemblée nationale bi nga xam ne mooy ñaareelu pouvoir bi te loolu war na feeñ ci première assemblée nationale bi nga xam ne moom la suñu régime jub jubal jubante bii war a indi ñu war a fa ñu am xam-xam ñu am éthique ñu am patriotisme bëgg Sénégal ñu am fit ñu dëggu ñoo xam ne intérêt général intérêt Sénégal kott kott kott kott ak njëriñu Sénégal ci la ñuy dox. kon loolu dafa am solo ci tabb gi ñi ñu war a tabb def leen ci liste yi pour ñu war a mën a nekk ay député suba wara mën a taxaw di voté li nga xam ne mooy loi yi nga xam ne ci la réew mi dox loolu benn la ci liggéeyu député waaye tamit waral def li nga xam ne mooy contrôle de l'action du gouvernement mooy li gouvernement bi liggéey député yi ñu war a tabb ñoo ko war a càmbar di xool ndax jaar na yoon ak jaaru yoon ndax njariñu askan wi la wala du njariñu askan wi waaye tamit di def li nga xam ne mooy seen mission bokk ci l'évaluation des politique publiques maanaam programme yi nga xam ne gouvernement bi président bi teg nañ ko ne fii lañ jëmale Sénégal alal ji fii lañ koy def lii lañ ci bëgg ak yooyu député bi dafa am pour di ko càmbar bi xool ndax baax naam baaxul ndax war naa dem ci askan wi ndax lii baax naam lee baaxul di ko jubbante ko jooyante ko di ko jubal ñett yii mooy li nga xam ne mooy lu ñàkk lu mënta ñàkk ci liggéeyu ab député mooy lu mënta ñàkk ci liggéey ak député ñeenteel bi nag mooy la fonction de représentation mooy député bi dafa nekk ndaw askan wi ca pencum ndaw réew ma loolu tamit ci liggéeyam la loolu ci fonction am la bokk la représentation la fonction de représentation muy ñeent yi nga xam ne képp ku bëgg a nekk ab député war nga koo xam xam liggéey ba nga war a def xam lan mooy euh, finance publique xam les lois de finance xam li nga xam ne mooy la loi organique bi porte le règlement intérieur de l' assemblée nationale xam fonctionnement assemblée nationale xam commission yi xam conférence des présidents xam bureau assemblée nationale xam la commission des lois yi nga xam ne souvent proposition de loi yi rek projet de loi yi ràññeet la koy bañ ko jaawale fa lay jaar avant muy agsi plénière xam luy plénière xam luy vote les votes la majorité absolue la majorité qualifiée la majorité relative yooyu yëpp ñu xam ko mu nekk yoo xam ne ay roq la yoo xam ne métier à part la waruñu faa tabb n'importe kii rek ci politique politicienne kon ñi nga xaar président Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko ci tànn yi ñu war a tànn ñu teg ko ci tànn yu mucc ayib yoo xam ne bu ëllëgee bu ñu amee ndam ba dem ca assemblée ba bu ñu fa jëlee kàddu bu fa dossiers yi ñëwee ba ñu koy càmbar daañ na ah guleet pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal Sénégal am assemblée boo xam ne ku wax nga ne gonga ku wax nga ne gonga ku bind nga ne gonga loolu dafa am solo ci réew mi tamit parce que sagu réew mi ci la bokk sagu suñu pouvoir bi président Bassirou Diomaye Faye nekk ca bopp ba premier ministre Ousmane Sonko nekk ci gouvernement bi sag la ci ñoom. kon mbokk yi gannaaw loolu ndax dafa am ay sabab mooy tànn bu ñu tànnee ba noppi def liste yu baax ànd ak premier ministre Ousmane Sonko di sàkku ci moom mu jiite list bi nekk suñu tête de suñu campagne liste national ñu def ay investiture au niveau des départements fexe ba ndaw ñi nga xam ne binduwuñu ñu fexe ba ñu ubbil leen liste yi même bu nekkee 15 jours fukki fan ak juróom ñu def ko pour la révision des listes fexe ba ñëpp ñëpp mën a am seen carte d'identité am seen carte électeur te li nga xam ne mooy non votant yi nga xam ne dañ ko doon bind ci ginnaaw carte d'identité yi ñu fexe ba jubbanti ko jooyanti ko jox ay moyens yu dot ministère de l'intérieur notamment la DAF la direction de l'automatisation du fichier ba ñu mën a liggéey guddi ak bëccëg fexe ba ñëpp am seen i ñuy yokk les circon euh, le le la carte électorale yokk bureau de vote yi wàññi nombre d' yi ci bureau de vote yi def benn coalition bu mag a mag a mag autour de Pastef bu am doole def une bonne investiture yii may wax bu ñu ko defee dañuy am cent cinquante députés sur les cent soixante cinq te mooy def une bonne investiture ay nit ñu xarañ ñu am xam-xam ñu gëm projet bi ñu nekk ay patriotes benn def coalition bu mag autour de Pastef dugal ci ñi ñu ci war a dugal ñëpp ñetteel bi mooy ñu fexe ba ñu war a bindu bindu ba ñu war am seen i carte électeur ñëpp am ko mooy ndaw ñi ñi ci ëpp ñu fexe ba ñu bind leen ci fukki fan ak juróom bu ko laajee ndax diir bi gàtt na waaye ñeenteel bi mooy ñu fexe ba carte bi ñu modifié ko mooy yokk bureau de vote ba mu gën a bari waaye wàññi lim bi nga xam ne moo nekk ci bureau de vote bi ba ñu bari mënee voté ñu am pourcentage bu mag a mag ci taux de participation li may wax nag c'est technique maa ngi ñaan yàlla président Bassirou Diomaye dégg li may wax maa ngi ñaan yàlla premier ministre dégg ko parce que ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi léegi ñu mën cee bàyyi xel parce que li may wax bu ñu ko defee dañuy am ndam dañuy am 150 députés ci 165 yi lu leer laa la wax ay techniques yoo xam ne bu ñu ko utiliser dañuy dem kon mbokk yi dinaa ci dellu si waat na maa wax ci laay fi lool li ngeen dégg yëpp ñu di ko wax ci Akhenaton ay tàngal ceeb la dañu su yu wax yu mu waxoon bu yàgg la la gars yi di indiwaat fan yi waaye tey jii nga xam ne mooy le 13 septembre di bis bi ma defee ndéggat lii gëj na maa wax loolu ci réseaux sociaux yi li ngeen ci dégg muy jàll yëpp dañ ko jël jëli woon ci samay wax yu yàgg yàgg di ko indi di ko dagg di ko déglaat ndax gëj nga dégg gëj ma gëj a dégg ndax ñàkk jot waaye daañu dellu si waat incha allah rabi comme campagne bi tàbbi na daañu ñëwaat nag ci réseau yi ànd ak def campagne incha allahu rabbi fexe ba la coalition Pastef parce que loolu laa jàpp na ci la deme demee xamaguma mais man mooy sama bëgg-bëgg kon noonu lay wax ñu dem ci ay élection yi ci jàmm diaspora bi gagné fépp waaye Sénégal ñu gagné fi ëpp ci Sénégal am majorité boo xam ne day wow koŋ majorité bu cohérente bu bu loyale bu compétente ñu ànd ak président Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko ak suñu majorité présidentielle taxaw déroule projet bi xalaat yi ki nekk idées yi liñ jaayoon Sénégalais yëpp ñu mën koo lawal Sénégal naat Sénégal jëm kanam jub jubal jubbanti toog ñu mën a jëm nag ci développement parce que boobu ba léegi développement amu fi mbay maa ngi sooxe càmm gaa ngi sooxe hôpital yaa ngi sooxe nit ñi ñu lekkuñu ñu amuñu luñ lekk ndool moo nekk ci réew mi loolu lañ bëgg a xeexal jëlee ko fi ba sénégalais yi mën a dund lii lépp loolu mooy sabab bi kon ñi ngi woo mbokki sénégalais yi suñu mbokk yi nekk ci kaw gi suñu mbokk yi nekk ci taax yi ñi ngi woo ñi nekk diaspora bi bàyyiwuñu kenn la ngeen defoon 24 mars 2024 23 ngeen tabb le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci 54 pour cent virgule 28 ñi ngi leen di ñaanat bi yoon ngeen may ko majorité boo xam ne day am 70 pour cent de taux de participation ak 150 députés lu mu néew néew néew néew néew mu am ko nga xam ne léegi jox ngeen ko lenge yëpp nag ngir nag mu mën a doxal li nga xam ne moom la dikk sénégale itam te mooy suqali réew mi ba ñëpp mën a dund kii wax a yéen di seen mbokk di seen xarit di seen ma réew te ngeen xàññee ko xàmmee ko ràññee saa su ne ba muy metti mi ngi fi tey mi ngi fi suba mi ngi fi ànd ak yéen ànd ak Pastef ànd ak président Diomaye ak premier ministre Ousmane Sonko ak ñëpp ñu nekk ci biir projet bi ngir tabax Sénégal ndax tabax googu kenn ku ci nekk da am doj woo ci war a indi muy xeer du président Ousmane Sonko mooy tabax Sénégal moom kott du président Bassirou Diomaye moom kott moo ko def du man mii kott ñun ñëpp kenn ku ci nekk benn benn benn ku nekk indi sa benn ñu boole ko mu nekk lu bari bu kenn xeeb sa bopp yàgg naa ko wax ci mbir mi Sénégal la ñoo ko bokk mënuñu koo seddoo yàlla moo ñu ko boole ndax alalam la féewaloo gi kenn mënu ko du tareexa moo ñuy féewale du dégg nga maam waasoo moo ñuy féewale du ak mbokk moo ñuy féewale du alal moo ñuy féewale du dara lu ñu mën a féewale ndax yàlla moo dogal ñu bokk Sénégal mënuñu koo séddoo kon dañ koy bokk defar ndax mënuñu ko bokk yàq bokk defar moo fi nekk wala bokk yàq te yàlla nañu yàlla musal ci yàq kon nañu ànd defar di leen nuyu di di leen ñaanal ajju ajjuma jàmm kon tey jii bisub àjjuma la yàlla na leen yàlla taxaw yàlla na yàlla taxawu Sénégal yàlla laabal xol yi fëgg bopp yi sellal xalaat yi ak yéene yi ñu